Euh, Serigne Mansour mooy doomu Seydil Xaaji Malik la wala ci gannaaw mbooro dafa ñëw am fa benn tool bu ñuy wax kër paate xewe kër paate xewe nag ñaar lañ fa wax dañ fa moom fa mu doon ñaan dañ ko sedd foo xam ne place boo xam ne ay jinne lañ wax ne ñoo fa ñu tudde barab boobu bay dee maanaam ku ko bay rek bala nga kaa récolter dee léegi bu mu ñëwee foofu ñaan doon fa wut tool gars yi utal ko foofu xanaa ñooñu yéene nañ ko dee wala boog moom ci boppam moo ne fii fal la ñu nekk fii bay dee la tudd mu ne jox leen ma ko ma bay bi. bay dee dafa sësëg benn barab boo xam ne dex moo fa ne dex gi ay gisi dafa am yoo xam ne nii kenn ñemewu faa dugg euh, sëriñ Mansour ñëw fa nag ànd ak taawam muy sëriñ Moustapha Jamil sëriñ Babacar si boole woon kook moom mu ñëw foofu boobu tër bi yow na ci yàlla ba fes del ci yàlla euh, bi mu ñëwee jël bay dee bay ko ñoom dëkk ba nangu nañ ne mën nga commencé ruuj bay mais bala ngaa récolter yo yow yaay dee léegi nag mu bay ko ba mu àgg nag mu dem Tiwaawan ba récolte jot nag mu ñëw ànd ak Serigne Moustapha ak ay mag jaar Mboro dem romb nootu après nootu dem Kër Paate Xewi bi mu ñëwee euh, ne nañu jeex deqi tool bi. mag ñëpp di ko xool ndax xam naa la war a dee ñu di ko xool mu toog di toog ñuy récolter ba lépp ñu teg ko ñu di ko xool seen bët seen xel nekk ci ah moom di xanaa deewul mu bëgg leen wax loolu gën a dee loolu mu ne ana Moustapha muy Moustapha Jamil mu ne ko maa ngi nii si mu ne ko summeekul nga dugg ci dex yi plongé ci dex gi di rombante nii ak jësit yi te kenn laalu te neewoon nañ ku fa dugga de dee fa ndax dee gi benn muy muy misik ndax ay rab yu fane ne wala boog muy jësit yi sëñ Moussa nii la doon rombante ak kii ak jësit yi mag ñëpp jombi sëñ Moussa nekk fa ab diir ba nga mag Moussa génn mu soluwaat taxaw mag ñëpp jombi nag mu wax fas yi de ne yéen lu tax ngeen di yaakaar kudul yàlla afil basitati ndax nekk na ci dënd bi maabudu kuñ war a jaamu di nga gëm xayrallahi kudul yàlla bil xaq ci dëgg ay rabak ay jinnek yu ñàkk fayda yooyu am wala même fi sama ci asamaan am na mawjuudu lu fa am lu am leen xayri lu dul yàlla tontu li mooy déedéet yaram bi tàng mu ne subhaanahu tudd naa selluk yàlla min ilahin ci borom waaxidin kenn somadin muy ki ñëpp jublu lahu ñeel na yàlla albaqaat des fi moom rek a fi sax ana mu mag ñi mu doon wax ñépp dem nañ bu sëñ Moustapha mi doon sangu ci dex gi dem na moom dem na mag ñu bari ñu ko fekkee woon dem nañu kon yàlla rek a fi des wasanaa un moom moot wasanaa un ak tagg fii ci yàlla tax lii du loolu rek a fii des gis nga lii ëpp na juróom fukki at ñu ngi toog di ko jàngale ëpp na soixante dix ans ñu ngi koy jàngale kon tagg yàlla moom rek moo fi des alaaj Mansuur ne kon nag hamdan lahu maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla waaye boo tëbee sant yàlla est ce que yàlla dina ko nangu mu ne déedéet kon foo nga jaar ci buntu yonent bi muy turandoo mu ne wali man maa ngi sant ki nga xam ne xar xassahu yàlla moo ko jagleel sharafan teranga te daan goo xam du ko am li ci keneen fi dëhri mafkuudu ku ñu ñàkk kooku mënu koo am ku dul yonte yàlla muhammad waa kuy kooku ki ngay teg gannaaw yàlla mune ne muhammad safatul axyaari muy sellu gaa yu baax yi shafii naa tey di nuyu ramm alayhi yàlla nekk ci moom xayru salaam yi ngeen ji nuyoo fii biiru ba faw bu ma jullee ci yonent bi nag wal aali ngi tagg ay saxaabam ay ñoñam wa sax bi ak ay saxaabam wal azwaaji ak ay soxnaam ñi ko jàppale ba mission bi jàll xaatibatun ñoom ñëpp maa fil xaraatiis yi mu ngi ci këyit yi tabiidu lu weex wa taswiidu ak lu ñuul lu ñuul mooy lii lu weex li nag mooy li nekk ci fekk daal mu ngi am weex ak ñuul weex ak ñuul këyit gi day ñuul day weex mbind bi day ñuul alaaj Mansuur nag xaalu daa ma tey nag ndax barke bi ak leer gi ma am bay def kéemaan gi du man de mag ñi sama sëriñ laa ko amee ci barkem muy Seydi Hadji Malick moo ma yar ba deful ci sama xol lu dul yëkk yàlla moo tax ma mën a def kéemaan gi man na yàlla xéewale na alay naa ci ñun bi cheikhin ci sëriñ walidin boo xam ne sama wayjur la rahimin di ku bari yërmande barrin ku baax la atuufin ku maanaam ku ñeewante la muxiisin koo xam ne dafay xettali taalibe minhu ci moom tajwiidu nekk na fa ay xeetu taar yu baree baree bare inni kon man Mansour abuxu maa ngi tudd bi shukril qalbi ci sant sama xol di ko sant waasitati ki nga xam ne moom la yàlla eh, eh, jaarale xéewal yi ndax yonent bi nee na képp kuy sant yàlla te jaarale woo cant gi fi mu jaarale xéwal gi yàlla gedd na kon lépp lu ma am ci cëru yàlla tey ba ngeen ma koy nawe ci waasitati la ko jaarale mooy sama sëriñ muy Seydil Hadj Mari wa in ajastu donte naa lot donte lot naa anil ifa ci matal koy ko itam taadidu ci lim gi mais naa wax rek sëriñ Mansour ne fahal bi aj zimri in ndax nekkul di lottal nit an addihi ci limam qataraatul wabli toxi taw yi nawet jot si euh, dëkk bi taw ba inondé nga naan non un deux trois quatre toxay toxay ne da nga koy kii ba yàgg nga ne ah man daal mënatuma est-ce que loolu gàcce da cee ne moo tax bi aj zimri ndax nekkul ci lottuk nit an addi ci limam xataraatil wob li toqi taw yi nga xam ne aarun dafay gaar ci moom loolu ndax gàcce da cee te wu fi wob ci taw bi tajaawiidu ak tabe lool bari lool est que loolu gàcce la ñàkk ko man te mooy lañ waxoon lañ la waxoon eh, bi nga da ngay wax ñu ne looy wax ak fooy dale xam nga wax sax baax na waaye xam fi ngay dale baax na mu ne nag comme mënul tàgg sëriñam ah mu jotal yéenam rek yaa naj la Ousmane yow doomu Ousmane najlu dina firi doom salilu dina firi doom ibnu dina firi doom moo tax wax na fii ibnu wax na naj la yaa naj la Ousmane yow doomu maam Ousmane si muy Seydi Hadj Malick Sy yaa saadal muridi yow texeg taalibe bi wa man indahu yow mi nga xam nekk na ci yow an nujuxu fajug aajo wal ixsaanu ak rafetal wal juudu ak tabe maa ngi wax ne fardun faratal alal ibni ci doom shukrul walidayni mu sant ñaari way juram gannaaw yàlla wante te yow alwalidul barru yaay way wu baax bi yamoo ci way jur ndax papa yomb na waaye yaa ustaasu yaay sama sëriñ sin diidu di suñu sang yemoo foofu de wa anta ba tey aydan yaay sama cheikhu murabbi xoolal mooy wuy baayam mooy cheikhu tarbiyaam eh, asawra taalimam mooy cheikhu eh, tarbiyaam mooy cheikhu tarqiyaam ñeenti mbir wa anta aydan murabbi nafsi yaa yar sama bakkan muslixuha yaa ko yéwénal moo tax ku foog ne nit da nga xëy rek yegg te defaru la yaay ndax sa bopp wa kaana lii am naa ci yow min ka irshaadun ay orientation wa yiidu ak dëgër nu mel rek ci mbax yaa ci yar albastani solal ngama ma bili baasi sitri ci ay yërey sutura fii zamani ci jamono xudran mun na tax lool neex lool ndax Sidi Haj Malik dafa faatu bàyyi ko fi nee na ma waroon a waaye solal nga ma ay xeetu yëre sutura ba fu ma séenoo gàcce rek am ci ndam xudran mun na tax ka anniya ba mel ni fil aqraani ci samay morom dafa mel ni daawuda la yonent yàlla daawuda moo doon yonante doon buur bi bàyyi suleymaan fu ma toog ci samay nawle ah bu ma fa sutul kenn du ma sut te yow loolu alaj maa yaa ma ko defal aslaxta nga yewenal xaaliya sama mbir sirran ci secret ma tëjoog yow nga defarma lastu muxtafilan moo tax léegi faaleetuma si war ridaalul ngërëmu yàlla te mooy ku su sëy defara defar ba yow loo gis xool nii rek nit ñi tëb di daal nga naan ah yow jommi nga lastu muxtafilan faaleetuma léegi ci àdduna si war ridaalul ngërëmal yàlla wa ridaakum sa ngërëm nag fii tasidu ci sama ci la sama texe ne mooy yow boo ma gërëmee rek li ci sama yoon nekk la nga ma waxoon yëpp gis naa ko man alaaj maay te yaa ngi ci biir bàmmeel maasiltu dañu ma arfulu di tërëf tërëf mooy koo xam ne dafa sol yére yu ko ëpp yére yu ko ëpp bu dee tissu defe naa loolu baaxul sol yére yu la ëpp bu dee tissu baaxul mais bu dee yére xéewal nag ak teraanga nag sol yére lu mu gën a ëpp rek gën a baax sax mu ne maasiltu dañu ma arfulu di tërëf fii athwaabi an'umikum ci yëre yi say xéewal fu ma dem ci Sénégal fu ma dem ci adduna bi ñu ne kii doomu Hajj Malik la teral ma wala ay su sama dën dund fi mel nii fii raxatin mu ngi neex lool <laughs> dund fi neex na fu ma dem ñu teral ma wal jaddu cër bi itam Mahmuudu ñëpp ko sant cër bi moom am na waaw ma ne ci xéewal googu nekk ci teraanga googu nga jàngal ma yar ma defar sama biir defar sama biti ba xëy faatu ma foog ne perte naa bàyyi perte naa sëriñ ñàkk na waaye wa baadama xibta gannaaw bi nga fàddoo wajhu dëhri ci kaw addu euh, kaw suuf ma foog ne fi jeex na fekk nag mus mun tan mu commencé baawan nag lanaa ci ñun bi fa di ko say may say bëbb wa tey siiru yombal gi masruudu di tegluwoo rek kéwal gu ñëw ba ma foog ne fii lay yem man Mansour beneen ñëw kon yow faatu woo nga sàmm bu man kanam man gannaaw yooyu duy faral di am am sa sëriñ mu lay teral bi muy dund ba faatu nga foog ne fi lay yem ndekete mu ngi doo commencé li ma gën a yéem mooy la nga ma waxoon yépp bis bu jot ma teg ci bët ay xos tanaa yewoon nga ñu zamanan ci jamono joo xam ne yëpp fii dina ñëw bi max baratin ci sax xibaar yaa nañu doom jamono ngi ñëw nangam ak nangam xew ba fi may lu ñëw man damay xool li rek ndax ma xool ngañ ko bu yàgg wa kaana fiiha te nekk na ci jamono ju idan linnaas ci niñ tardiidu ak déng-déng maanaam kenn du taxawati fen nga waxoon ñu lii ñëw ci jamono ñu toog di ko déglu waaye alaaj maa yaa ngi ci bàmmeel mais maa ngi lay yëgal ne kullul ishaaraati junj yi nga junjoon yëpp saarat mujj na kën na mel ni bëcëg tey léegi boo xoolee maa janoog moom ah fama lil lay li ñeewul guddi ñeelatul guddi gi chakkul sikki sàkk guddi mooy li ñëwagul bëccëg gi nag mooy nga gis que ni fama lil lay li ñeelul guddi gi chakkun sikki sàkk baqaa bu ciy deseti bal anhu guddi kay matruudu dañ ko dàq léegi lépp maa ngi koy gis ni loo ma doon wax xam nga nag koo xam ne da nga jommi te kii la jommal mu ngi ci bàmmeel yow da ngay mujj a toog ki bàmmeel bi di xool rek donc man di jaaxal nga ma loo ma waxoon yow Seydi Hajj Maalik teg naa ci bët fii kulli min bis bu ne xam naa lii tabaarakallahu mat naa déglu fii kulli min bis bu ne lanaa ñeel nañu fi lawxul benn alwa boo xam ne yuzakkiru naa moo ñuy jàng moo ñuy fàttali min xikmatin ci xam-xam yoo xam min ka mu ngi juge woon ci yow maanaam bis bu jot dinañ ci gis loo xam ne moo ñuy fàttali loo ñu jàngaloon nga xam ne fii ha nekk na tersiidu suñu orientation ak dëxër ci jamono maam dafa mel ni alaaj maay ñoom li ñu war a dund yëpp da leen waxoon teg bis bu jot nag ñu gis ci lu bees ñu jël loolu jëfe ko te muy li may wax ne bis bu jot may sadaqallahu azim ndax ki ñu waxaw lépp lu war a xew bis bu jot nga gis fàttaliku ne ah lii de sëriñ bi waxoon na ma ko barki dem ay waay jëfe loolu ndax dina dem ba doo gisati sëriñ bi waaye moom li mu la jàngaloon mu ngi fi des bis bu jot nga jël ci loo war a orienté wu yow Seydi El Hadji rutta tàggat nga an nufu sa bakken yi ni ngay yoree sa fas di ko tàggat ba mu ba mu ba mu roode yow Seydi xaj Hadji noon nga tàggatee suñu bakken ci xiif ak ci mar ak ci coono ak ci tukki ak miin ñàkk li diinillahi ci diine yàlla ji tarbiyaten ci tarbiya ba fi mu ne nii dara safatuñu moo tax iblisu iblis mi nga xam lu bon rek lay def mab tasamat muñatul de waxuma ree xam nga iblis bu ko reeloo mooy lu bon mi iblis gëj na muñ ci ñun te minu ci moom almakaayidu fa la pexe yi jóge ay muñatul sax bay ree ndax lu war a kontaanloo iblis rek yar nga yar nga ñu ci yow Sidi Hadj Malick ba duñ ko defati donte jóge fi mais li fa sëriñ mën a yem asbatta yow sëriñ Sidi Hadj Malick dëgëral nga arkaanahu ay ponki diine billahi ci yàlla maanaam dë nga ponki diine fa tadalat ba mu ba mu yemoo wa kullu saxrin lahu te bépp maanaam gox mas duudu euh, lu ñu tëj la bil jiddi ci sa far maanaam lépp loo xam ne iblis waroon na fa jaare pour yàq rek bépp turu bu iblis waroon a jaare pour yàq yow tëj nga lool boole ni nga ñu yare yow si xaj maay awat ta tàmmal nga fi nafsi suñu bakkan tàmmal nga ko aadaatin ay aada yoo xam ne ni wala awatta tàmmal nga fi nafsi sa bakkan yow si xajmaay aadaatin ay aada yoo xam ne bi biha moom lañ la xame moom la lu ñëpp xame yow si xajmaay yar nga sa bakken ba ñëpp xamee la ko mooy sidqun dëggu dara mënulaa tere wax sa dëgg wa zuhdun ak dëddu àdduna sëriñ sëpp ngi daw uti àdduna dem ci gouvernement yi yow nga toog di lekk sa cere ak sam ndox wa insaafun ak mandu duggoo ci fi kenn wa tëj wiidu ak di def lu rafet di ko wax li li ëpp li li jaadu na ñu di ko fàttali di ko tudd zëyyanta rafetal nga sunnata man sunna si yent yàlla mi nga xam ne yent yàlla muhammad mi nga xam lawlaahu bu dul woon moom maa barazat du feeñ mukk shamsu nahari jantu bu dul woon yonent bi yàlla du bind jant wala badrun du bind weer wala udu du bind sax bant waaye sunnay kooku nga rafetalaat ndax bu njëkk ba lu ne la nit daan def def ko ci turu diine waaye sellal nga lépp ba ku bëgg a def sa caay-caayu bopp sax di nga xam ne yow yaa yow yaa ko jëfal sa bopp waaye loolu du sunna jaaxat nga jihaat bil xaali ci say melokaan xam nga nit damay def mu jaaxada mu jaaxada baax na waaye njëkkeel sa bopp boo yaree sa bopp ba sa bopp yaru ku la xool njaru jaaxat te nga bil xaali ci melokaan ada an laha maanaam nooni sunna yi faxa daw ba mujj ñoom noonu sunna yi mun xësimiina di daw waliidul bid'a maanaam doomu bidaa yëpp maw uudu dañ leen suul tey képp ku juddoo woon ci bidaa suulaat nañ ndax na nga xam ne diine ji melul woon nii ci xaj ma moo ko ba mu set bicc ba lu ci bokkul mu teg ko sëriñ yu bari ak ñenn daan nañ takk lu ëpp ñeenti jabar boo waxee ñu ne non taawil seen taawilu bopp ñenn ñi dañ daan naan sàngara boo waxee ñu taawil seen taawil bopp waaye lu jëpp alaaj maa moo ko dindi moom set lisaanu xaalin lahaa moo tax lisaanu xaalu sunna mazala dañul yem daxukum di la tàgge yow sidi xaj mari li jëbrikum ci sa njàmbaar ak sa farlu wali tabridi ak seral gi nga seral qalbi diini xolu diine <laughs> diine bu doon xol la da nga seral xolam tujaahidu nafsa ngay jihaad ak sa bakkan wa cheytaana ak cheytaan mujtahidan di farlu fan qaxaraa ba ñu wane gannaaw daw dafa mel ni alaaj ma di doon xeex ak ñoom bakkan ak cheytaane bañ daw wala kum ñeel na la fi nafsi ci bakkan tësh diidu nga orienté ko yéegal ko ba mu kawe kon jazaaka rabbuka yàlla na yàlla fay la yow sidi xaj ma ay xayraatin ay yiw te ku gore war a ñaanal sa sëriñ lii bis bu jot nga gis koo maasel koo bokkal jamono ni nga mel melul noonu kon war nga xam ne li nga am la amul kon nag yàlla na yàlla fayal ñu la mudaafatin fay gu muy ful taaya boo xam ne dina lotte anil addi ci lim ka an ha albiidu ku weex wa suudu ak ku ñuul yëpp te nag ñun de xamuñu sa biir waaye biti bi wane wan nañu ni nga mel inna zawahira zahir yi unwaanul bawatin mooy wane biir yi xat xullitta te yow takkal nañ la juma iqda din maanaam caqu jama nicma taqlidu ak baax takkal googu maanaam zahir bi rek daal takkal nañ la ci médaille wala tubaab yi dañoo dem a dem ba reconnaître ne alaaji Malick dëgg dëgg dëgg gàcce ngaalaama takkal la waaw gannaaw tubaab yi yàlla ko mën a takkal nu la yonent bi def nag ñoo tax mu ne zahir bi mooy wane baatin bi fa najlu Ousmane alaaj Mansour ne dëgg-dëgg doom maam Ousmane bi di Seydi Haj Malick xut bi kii sama sëriñ qaidi mooy sama gidd wazari mooy sama wéeruwaay man Seydi Haj Malick mooy ki nga xam ne fadluhu teraangam xéewalam mashduudu mashhuudu lu ñu seede la fii jamii naas yi boolam nit ñi ku iñaanul rek wax nga mbaaxu alaaji maali musawiba ra'yi muy ku jub xalaat bis boo demee ba ñëw ci moom ne ko si dama bëggoon daal nangam ak nangam ak nangam dana la ci wax loo xam ne tabaarakallah fii tadbiir yi ci xalaatam am na xikamun ay xeetu njariñ yu baree bare bare walaysa fii diini yi te diineem amu ci rëccun nëbbu wëtëf niidu ak loo xam ne ay fen la te rëcc mooy lan wan nit ñi sa mbaax te boo tëjoo ci biir nekk ci leneen waaye si xaj maay boo ko fekkee trois heures du matin bette ko néegam day jeex ci yàlla ba doo xamante looy def lam yaxtu Seydi Xaj Maalik wallahi maay doomam te dama wax ne doom lu mu seede ci baayam jabar lu mu seede ci jëkkëram <clears throat> bëkkaneeg lu mu seede ci sëriñ bi mat nañoo gëm ndax sëriñ bi mën na ñëw ci mbooloom wax wala mel nu mu gëmul waaye après kan lay àndal ba këne <clears throat> du boo koy tëj di ko tijji kooku li muy xam ci sëriñ bi di ko gis bu dee sëriñ bi bandi la moo koy jëkk a xam ndax bu bëggoon a naan lu lu lislaam tere kum koy yónni bëkk nekk bi nekk nag nga <laughs> ngeen yëg dégg moo tax bëkk bu demee ba jooy ne ku mel ni kii du ma ko gisati teeyal ci waxam jabar mooy fanaan ak sëriñ bi kon li nit ñiy gis ak li muy gis du benn nit génn na ci biti baax dugg ci biir nekk ci boppam kon soxna lu mu seedeel sëriñam euh, mat naa seede bi ci des mooy doom ndax doom nawle la bàyyi njubadeem du nëbbu doom ndax koo xam ne nii la toll nga koy téye ba mu toll ni yow noo mel xam na ko rawatina nag nga yar ko teg ci kii nag doomam la te waxuma doomam la mais mooy doomam bi ko gënoon a jege ci doomam yépp buy dem jàkk yi ñooy ànd buy dellu si ñooy ànd moom lay euh, guddi gi moom lay woolu bu amee ku muy yabal moom lay yónni léppam moo koy def moo doon loxo di jooram bu ñuy wax bëkk nekk moo doon bëkk nekku Seydi Hajj Maalik moo tax kii bu seedee ci Seydi Hajj Maalik mat naa bàyyi xel moo tax mu ne lam yaxtu masula dox xattu mukk xutan benn jéego fii umrihi ci diiru jamonom li xëwan ngir bànneexu bakkan sol dàllam dox jëm fenn ngir bànneexu bakkanam déedéet wa kullu waqtin lahu waxtu wu ne ñeel na ko taxdiidu ak organisation li nafsi ci bakkanam moom lu ne daf koy organise moom Seydi Hajji Maalik te lu ne daf koy utali yemukaay pour bañ bakkanam avancé boo gisee mu ne moom mosul xam fu toolam yem waaw tool boo ko amee xam nga tool day am ay dig nee na bis buñ nekk fële sa tool yem mu ne waa baax na du ko bëgg a xool ndax nee na boo ñëwee ba fi tool bi yem sa xel dina nekk li ci des noo koy boole ci sa tool bi te fi jàmbur la moo tax waaw kii dem ba mu du gis kon fi toolam yem nee na Maw Malick de musta xam fi tere yàlla yi tàmbali ndax nee na li ndax nee na li dagan yëpp da dama ko dul jeexal sax bay xam ndax yi dagan boo ko toppee di ko topp ba ci frontière ba xam nga fa la yu yi di tàmbale nee na nag boo toppee dagan yëpp ba àgg ci bi lu ca des benn moo benn mooy am nga oññeeku mbaa nga avancé ñaan moom bu yeggul mu gën a dee radiyallahu anhu sëriñ Mansour nee na in kaana bu nekkee moom Sidi xaj Maalik fil waaz ci waaraate nit ñi maanaam buy doon def conférence toog ci jàkk ji di waxtaan yulqi dina joxe kulla naaxiyatin wàlla bu gis rek wàlla bu mu doon dina fa wax xawlal ilaahi waxu yàlla waaye daf waaraateem dafa tàngoon ke laysin dafa mel ni gaynde goo xam ne fii ci waaraate taxriidu day soññ nit ñi moo tax moom waaraateem dafa tàngoon loolu moom gis nañ ko sax ci bindam moom Seydi Hadj mari nee nañu di doon tafsir alquran tafsir ba tàng lool jamono jooju dafa tàngoon ndax bëccëg la di koor ba pare tafsir bi tàng wax ji tàng dañu jege kenn ah ah daanu yóbbul ñu jekki-jekki keneen ne ha ha mag ñi nee nañ lu mat juróom fukki mag ñenn ñi ne fukki mag roñ nañ leen keroog ki tafsir boobu moo tax ñu ne El Hadj Maay sëñ Mansour ne bu masaana toog di waaraate dina leeral waxu yàlla mel ni gaynde guy soññaat waaye lima ma gën a yéem mooy sëriñ yi jàngale sëriñ yi dañ daan jàngale samedi dimanche lundi mardi mercredi ñu bër sa jeudi vendredi moo daan noppalukaay waaye ku ci masaana jàngale ba mercredi ci ngoon da ngay war sa fas daw Tiwaawan nee nañu avant dem Tiwaawan dañ doon wax ne turam mu ngi tuddoon anulaaji Malick ah, avant muy tudd alxaaji Malick anulaaji sëriñ si nag ñoo daan dem bur laaji Malick waa ah, kon taalibe nu ñuy def léegi ku ci jàngale ba gàkk da ngay sa gàkk googu di ko dajale di ko dajale ba semaine bi jeex nga war saw fas ñëw fanaan si Tiwaawan àllarba bi alxames bi sëriñ bi du jàngale mu yendoog sëriñ yooyu ku laaj mu tojal la masala yi banga kontaan te faqih borom xam-xam bu kontaanee rek dégg na masala ba kontaan ñu fanaan fa yendu fa julli àjjuma delluwaat Sëriñ Mansour ne boo bëggee xam ni Seydi Hajj may mel ci may wël muskilaatu jafe-jafe yi lënt-lënt yi ak gak-gak yi isa azzat ndem dem na ba tar ba jafe ma maaqiduha seeni pas-pas bu ñëwee ci alaaji Maalik yaxulluhaa daf koy fecci par benn benn nii la nii la fekk walisaanul xawmi làmmeñu fóore yi ak gaayu yàlla yi ak borom xam yi maaquudu ñoom ñëpp dañoo fasu ñoom ñëpp dañoo jommi ndax xamuñu lu muy firi si xaj maa firi leen ko ci lu gàtt ñu dem ñu fa fii nekk na ci firi moomu kaanat xisaalul xayri moom daal dafa mel ni xat kamulat boog mat na fii ci alaaji maalik xisaalul xayri lépp luy xeetu jikko ju rafet maanaam jikko ju rafet ñu ñaan diw dafa tawe diw dafa am xam-xam diw dafa baax dafa mel ni moom yëpp nag la dajale lim laa lu tax lu tax alaaj Maalik warul mel noonu te waxuwa moom bul foog na borom xam-xam rek la de maa duudu kuñ limaale la min rijaalillahi ci gaayu yàlla alaaji Maalik a baax sëriñ Mansour ay wax nee na laynul janaa bi ak ko nooy wàll boo ko fekkee ci jàkka ji muy waaraate da ngay waaye boo ñëwee ci néegam mu ne la ah, amul solo dafa nooy waquurun ku wegu la boo ko xoolee rek dang koy respect kaana nekk na za shafaqin burum ñeewante borom yërmande alal masaakin yi ci miskin yi lil wa lil aytaam yi waaye nag eh, jirim yi moom tam xiidu mooy seen berceau bi ñuy toog ku ci ñàkk sa papa ñëw ci moom dalay dalal doon sa papa képp ku ñàkk mu toog ne la doom toogal moo tax ku masaana yeewi nga tiit te moom amul woon dara waaye boo ñëwee wax ko soxla du la wax du la jox li ne dala naan toogal ba yàlla ñëw bis bu yàlla ñëwee bu la yabalee ba ngay dem dangay ngay mujj jommi ci moom lam yëtti masta dikk xattu mukk bi cheyin ci dara xayra ma amaral mawla bihi lu dul lu yàlla digli si de xaj ma kenn mus koo bett muy def dara lu dul lu yàlla digli moo xam mu wét moo xam mu nekk ci nit ñi wa bihi ak loo xam ne tax taxmiidu cant lay doon linnaas ci nit ñi alaaj maay kenn musu koo bett mu def dara lu dul lu neex yàlla neex nit ñi teg xam nga ki nga bett ci benn koñ muy def dara nekk saa may ma rek bu ko gaa yi yëg nga doon def bu ak ah bu ko wax taalibe yi de ndax dañuy dem loo doon def yow si aj maay kenn musu koo bett ci lu muy bañ mu siiw radiyallahu anhu léegi nag sëriñ bu mel nii ku ko am léegi looy foo jëma ci de moo tax mu ne ida daxalta boo duggee xima haadal malaasi ci kaaraangey sëriñ bi faqul neel bégal nag bégal faqul neel lam axsha ragalatuma charrakumu seen ay faaleetuma kenn kenn jundal hawa yéen armée yi bakken kii du fexe lu leen neex mënu leen ba dal ku alaaj baay di sa sëriñ léegi yéen ñi topp seen bakkan lu leen neex jiimal leen ma mënalu leen ma dara ndax Seydi Hajj Maalik mooy sama sëriñ ñu ne ko lu tax mu ne parce que gaynde ku doon doom bu la neexee nga tooñ mbaam dellu si waat bu fa mbaam ñëwee ñu reere ka de këllay fi dafa mel ni gaynde xal la boo xam ne wàcc na bi ashbalin ci ay doomam maanaam yóbbu na ay doomam ala ujumin ci gott fala taqul kon bul wax lirumatin ci euh, maanaam fittkat yi xawlaha ci gott boobu naan suydu jam leen doomu gaynde am nga doomu gaynde ku fekk euh, ñii di kii nuñ tudda rëbbkat yi nga ne ee eh, rëbbkat yi kaay bu ndaw a ngi nii gis nga bés bu ko jamee lay gëj a rëbb moom du ñibbi ndax bu gaynde gi jugee benn xët la koy xët mu def dóom nee na ku Seydil Xaaj Maalik lu bëgg wax ne di sa sëriñ euh, xam nga léegi doomam ngay doon ko la laal yàqu te loolu dinay am nitu yàlla dina garanti ba garanti ay taalibeem ku leen laal rek yàqu yaa buxyati muy woon ak baayam sëriñam di tëj yaa buxyati yow sama yaakaar wa muraadi yaa buxyati yow sama càkkutéef wa muraadi yow sama mébét sama yow mi ma namm martax yow sama fowukaay euh, forukaay di yow sama wéeruwaay ana na nga xam ne asiru hawaakum maay sa prisonnier wu cofel maanaam ni ma soppee dafa dem ba tëj ma saada ci yow yéen sama sang yi kuuduwaay orienté leen ma waay al man suur mooy ki nga xam dañ koo jagleel abadan ba faw euh, moom moom la nattoo ci sopp la wala xaalu melokaanam sax shaahiduhu seede na ko xam nga lii ku ko dégg xam ne ki muy wax wax bëgg na ko taggul baayam de nee na melokaanam sax seede na ko bikum ci yéen wa qalbun xolam wallahi maqduudu dafa mujj def ay góom sax li shawqi ngir bëgg la yor ba wala ka ñeel na la mën manzilatun wàccuwaay fil qalbi ci sa xolam xolu Mansuur de am nga fa cër taskunuha yaa fa dëkk yaa man lahu yow mi nga xam ne ñeel na la mawridun rootuwaay lin naasi mawridu nga xam ne da koy rootal nit ñi euh, wa xawsu baxri sanaim di xuus nag ci sa géeju tag tag fii ka mojisat loolu moom mënta ne dinga xuus ci géeju tagg alaaji Malik ba jeexal ko tagg génne fii duggee ci riif bi deme fee non non loolu mënul nekk mojisa loolu lottalaate la ndax wa toolu baaxika sa guddaayu paa fil afaali ci jëf yu rafet yi moom duudu dafa dafa gudd lool moo tax kenn mënu laa dab waaw mel ni alaaj maa dafa ne waaw kana ki doon wax kana ak waxam yooyu mu nekk ki doon wax daal bu nay yukum sa doom bu ndaw la xam nga alaaj Malik alaaj Mansour bokk na ci doom yi gën a néew ay at ndax alaaj Malik ay góor la caatloo ndax alaaj Mansour alaaj Abdou alaaj Habib mooy ñooy doom yu ndaw yi moo gis nga ci photo bi bi muy yàpp maa Habib ak kii da gis ne nit la ak ay sëtam xanaa waaw loolu tax moom ay moo tax doom yi jigéen yi seeni doom mook presque góor ñi ñoo maase sëñ Basiru ñal alaaj Abdou magew lu bari dafa am moroom sëñ la te doomu alaaj maay bu jigéen moo ko jur te kooku du aawam ndax maam fat si mi nga xam mooy taawu Roqee Njaay di taawu mam Malick Sarr jur sëñ Muniru Sarr kooku soxna Fat sar mi mu taawloo moo mag ñii ngay gis ñëpp moo jur Seydou Wele bi doon wax te Seydou Wele gaañu kon alaaj Malick moo tax sëriñ Mansour ne ko bu ne sa doom bu ndaw bi ñuy wax Ahmadul Mansour yi abdukumu mii sa jàmm ataaka moo da dikkaloon tey mustamtiran di sàkkoo tawlu min faydikum ci sa géej gi sa euh, faydu bi juudu kon tabel in lam takun lii waaw boo ko joxul ay xéewal yow alaaji maay fa man yakunu kan lay nekk yaa sanadi yow wéeruwaay lanaa ñeel ñu kon fa ziidu dolli ñu lanaa min fadlikum ci sa xéewal ziidu waaye dollil way góor gi dollil yaa rabbi nawwir yàlla yàlla nga leeral darixan rawdu alaaji malik lil ibaadi ci wéerukaay bi lana min kulli yawmin ci bépp bés lana min yum nihi ba nga xam ne xéewal gi ngay yokk ci moom ak barke bi daanaka iidu lay feet lay doon ci ñun yaa axizuuna yéen taalibe alaaji yi jàpp bihi ci moom nag suddu na ngeen tar na ngeen dëgëral zuhurakumu seen ndigg mu ngi mel ni ku war fas ñu ne téel bu baax ndax man naa la ko am maa niltumu li ngeen am yéen taalibe elajma yaa ixuti waaye uudu jëlu si leen waay ngeen ngeen ngeen ngeen xam ne xéewalu àdduna ak moom ngeen am alhamdulilah ñu ngi sant yàlla nag is ma kuntu bi ma nekkee man Mansour fii zumari nekk ci kuréelu alaaji Mali bi nga xam ne nuudu dañ leen woo ilal mahabbati ci cofeel fii ikraamihi ci teral yonent yàlla Muhammad teraangam ak leeram comme man ci mbooloom alaaji Malik laa bokk maa ngi sant yàlla sallal ilahu yàlla na yàlla julli ci yonent ala nuuril muxiit yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moo peeg adduna bi yëpp maa fi fek feeg diine mu ngi ci tawxid wéetal yàlla diine nag mooy tawxid sax foofu wal ali wa saxbi thumma ak ñi leen topp waman ak képp koo xam ne lahum ñeel leen bihim fii umuri diine ci mbiru diine taqliidu képp ku leen roy ci mbiru diine rek yàlla yàlla julli ci ñoom hada huwa